waa kay euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar ñu ñëwati nag ci beneen spécial kii nag bii nag moom spécial la ci biir spécial yi alors euh, tey ñu ngi fii ci sama Samado International mu di dojo maître Dame Seck maître Dame Seck nag ku ko xamul tam dégg nga turam mu nekk euh, kilifa goo xam ne spécialiste la ci wàllu arts martiaux maanaam dafay pratiquer taekwondo di pratiquer li nga xam moo di ab kido ak yeneen aar yoo xam ne daal wax dëgg yàlla euh, maîtriser na ko macha allah bokk na ci maître yi gën a mag ci àddina bi. alors euh, am na ay ceinture noire yu bari yu mu formé ba ci président fédération bu taekwondo Balla Dieye moo ko formé ci moom la jàngee kon nag maître daam Seck maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ci suñu émission bi nga xam ne moom moo di réception alors yow nag man plaisir la wax dëgg yàlla ma ñëw tey. Euh, pour waxtaan ak yow ndax da nga nekk benn légende boo xam ni xëy na euh, nit ñu bari bàyyiwuñ la xel waaye daal euh, Sénégal amee na la njukkal kon nag maître ma bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ñoo ñuy xool. waaw ah, jërëjëf maître Pape laay wax ah, def naa donc ñu ngi lay ziar bu baax di la remercier donc di la souhaiter la bienvenue fii ci club Samado international di remercier aussi sa télévision. Mm-hmm. ak ñi ñuy seetaan ñëpp. maître Dame Seck comme ni ma ko junjee léegi rek yow da nga nekk nit koo xam ni Sénégal daf la war delloo njukkal alors xam nañ ne nag taekwondo def naa su ma juumul 1986 nga ko tàmbali fii Sénégal euh, bugg naa rek nga présenté wu tuuti wax ñu un peu sa parcours nga tënk ko rek maître. waa man xam naa nag ñu bëri taekwondo lañ ma gën a xamee mais karaté laa jëkk commencé non bi mu nekkee xale gën a ndaw peut-être vers 12 ans dans les années 76 77 si laa woon commencé def karaté mais yàgguma ci trop bon parce que xam nga booy seetaan film kung fu à l'époque euh, pour yow boo ñëwee saare dañ lay jàngal ay tëb ay naaw boo ñu lay jàngal ay position da yi ennuyewu ma donc na plus tard la reprendre nag yu ko def karaté ensuite si la enchaîné ak taekwondo comme ni ñu ko waxee euh, ba peut-être deux ans après vers 86 87 may def boxe boxe française Euh, ñu commencé ab judo en 2003 euh, période boobu aussi dama def boxe anglaise n'est-ce pas euh, auparavant nag dans les années maa ngoon def aussi kobudo kobudo mooy les armes ñoon chaku bâton yooyu yëpp yu ko kaay la ñu koon def def en même temps karaté benn instant nañu introduire kobudo donc yooyu mooy discipline yi ma def naa aussi kickboxing bi ma demee dafa xaw a jege ak boxe française bi ma nekkee Canada def naa fa aussi un peu de kendo ak MMA waa kendo mooy combat sabre ñi def donc euh, mooy pratiquement discipline li nga xam ne pratique naa ko def naa aussi ay stage yeneen discipline yu bëri damay def beaucoup de recherche nag quoi euh, pour pouvoir améliorer euh, ma proposition bi ma def mu nga xam ne mooy samado mooy discipline boo xam ne dama ko mettre au point mu nekk li ma yaakaar moo gën a essentiel si yeneen discipline ma pratiquer bi ñu xam ne nag arts martiaux fii ci Sénégal ñu bëri dañ koy pratiquer alors yow nag nga doon ci ko xarañ macha allah alors euh, am na ay ceinture noire yu bari yoo jot a formé ah parce que dojo bi mu nekkee ci camp gendarmerie bi def naa man ci laale soog a découvrir nga boole maag maître Fagna ñu koy nuyu au passage euh, maître mën nga euh, xam ñaata nga formé ci ay ceinture noire mi mi ngi ci sa bopp. waaw su ma yëgoon nag def listing bi parce que club yu club yu bari dañ ko def dañuy gis sax boo ñëwee seen saal ñu affiché ñu fa jaar ñëpp maanaam erreur boobu laa def donc xaw ma. xaw ma exactement xaw ma exactement ñaata ceinture noire la formé mais là je sais que ñi gën a gradé ils sont ceinture noire sixième dan donc euh, Balla sixième dan la am na ay cinquième dan bon am naa nag une multitude de ceinture noire premier dan nga xam ne ñu ci bëri sax léegi ñu ngi à l'extérieur ñenn ñi sax ñoo may jàppale si ñu ñuy propager euh, samado bi ñu nekk Italie euh, nekk Afrique du Sud Algérie France notamment mais nombre exact xaw ma daa xam naa ne bari na macha allah. waaw fii moi je dis que ça se bien parce que xam nga fu ñuy nattee euh, une bonne santé de de la pratique des des arts martiaux mooy nombre de licenciés bi su fekkee ne chaque année nombre de licenciés baa ngi progressé dañuy wax que ne c' est en bonne santé ñun ñaa ngi ko bëgg ñun ñaa ngi pratiqué c' est bonne santé ñun ñaa ngi progressé. donc peut-être que au niveau des résultats foofu ngay gis ne peut-être quelquefois c'est en dents de scie. médailles waaw yooyu quoi da ngay gis ñu xam ne peut-être que euh, avant lañ daan gën a mën a am ay résultats que léegi. Euh, mais de manière générale on peut dire que arts martiaux yi moom sa se sa se porte très bien. Euh, ñu xam ne nag euh, aussi dojo yi bari na. lu mel ni taekwondo bari na léegi ay ñu koy pratiquer ba ci région yi alors léegi dojo yooyu noonu ñoom ñëpp ci fédération bi lañ tënku n'est-ce pas. fédération sénégalaise de taekwondo lañ tënkoo alors euh, naka ngeen di organiser woo pour di dem ay compétition internationale waaw doole moom bari na bu nekkee taekwondo par exemple daj na Sénégal euh, déjà man bi ma nekk directeur technique régional kooku c'était euh, il y a une dizaine d'années déjà Dakar rek amoon na presque cent clubs fu mu nekk def na war nañ mat le double donc nombre de licenciés yi vraiment c'est des milliers et des milliers soo jugee karaté c'est la même chose donc euh, soo jëlee kung fu mu ngi progressé bu baax au niveau de licencié yeneen discipline aussi même chose donc pour les compétitions internationales ah, xam nga dañu am ay équipe nationale comme discipline yëpp donc euh, ku nekk nag ak façon bi ngay sélectionné ñu war dem euh, pour les compétitions internationales donc dañu choisir rek en général ay tests la ñuy def yooyu mais dans tous les cas dañuy jëm a am les meilleurs pour ñu participer à ces compétitions léegi nag li ci ëpp en collaboration ak ministère des sports la ñuy mën a am les possibilités pour mën def ay regroupement mën def ay préparation pour mën a dem à l'extérieur mais gisaguma vraiment discipline boobu xam ne am nga benn autonomie financière bu la permettre foo bëgg dem ci compétition nga dem ko donc à chaque fois dañuy def un peu recours euh, au ministère c'est parce que xam bu fekkee aussi sponsors yi ñëwuñ ci ñun on est obligé ambassade de Corée de façon ñoom ñu ngi jàppale tey kon bu baax au niveau matériel au niveau des stages aussi am nañ benn compétition gis naa ne war na reprendre sax la coupe de l' ambassadeur. Mm-hmm. bi nekk compétition booy seet bi ëpp solo bien que c' est le championnat mm-hmm. mais en tout cas boobu la ñu gën a sawar parce que historiquement ñoom ñoo jëkk organiser. Mm-hmm. donc depuis loolu nag mooy compétition bi gën a xumb en quoi Sénégal. ñoom côté boobu la jàppale mais ministère ñoom au niveau préparation athlètes yeeg euh, yooyu la ñu jàpp fédération bi aussi li ñu mën ñu ko def mais xam nga fédération seen ressource du taekwondo rek fédération yëpp mooy les à part licence yi dugg euh, si la ñuy am xaalis te di nga gis club yoo xam ne sax du ñu affilié hmm. combattant yu bari aussi dañuy xaar bu ñu déggee passage de grade ñu fay seen licence suñu déggee compétition kooku c'est valable pour toutes les disciplines hmm. Hmm. Euh, léegi nag euh, xam nañ ni que maanaam sport bu ne am na ay risques ah mais sport de combat daf ci rawati alors est-ce que am ngeen ay assurance au niveau des de vos différents dojos waaw assurance moom dafa nekk lu obligatoire donc je peux dire fii que mu nekk sanda que mu nekk judo karaté ainsi de suite boo amul assurance boo amul licence déjà doo te booy fay sa licence da ngay assurance donc à ce niveau là y a pas de souci à se faire donc ñoom ñëpp ils sont licenciés mais aussi ils sont assurés risques aussi c'est partout c'est pas que dans les arts martiaux dañuy pointer un peu du mais moi je pense que football moo gën a dangereux moo gën blessure yi am si football en général même pas ça sax mais les gens benn que les gens sont protégés euh, boo gisee taekwondo day mel ni ay tortue ninja sax loolu la ñuy tooñee gars yi web la ñuy sol pour nga gagner son problème boo gisee tay karaté coup yi c'est contrôlé n'est-ce pas boo gisee MMA bi ñuy wax sax bien que je dois préciser qu'au Sénégal fii MMA amateur la donc possibilité dafa bari tellement que euh, pour nga gaañu fii c'est difficile je veux dire en termes de possibilité yow nekkul di boxe rek nit ki su la soxla sonalee su loxo ko jàpp soo doxee si tànk yi mën na ko dóor coup de poing de telle sorte que mën ngeen compétir ba pare daanaka doo gis blessure def nañ ci compétition damay joxe tuuti exemple boobu on a fait huit combats médecin bi yéegul benn yoon ci ci tapis bi donc euh, c' est vrai que y a des risques mais risques yi euh, c' est partagé avec euh, avec les autres disciplines d' d' accord c' est partagé avec les autres disciplines ah c' est vrai que mhm. mais bon dañu gis ni nag arts martiaux mhm. dafa nekk loo xam ni lu sérieux la daanaka sax mën nañ ko méngale ak diine. Mhm. parce que dafa am ab discipline boo xam moom moo ci nekk. Mhm. Euh, maître euh, arts martiaux du rek pour euh, xeex wala self sax am na leneen quoi au delà de de de de am na leneen. waaw arts martiaux moom li ko taxoon a jug. Mhm. moo doon guerre xam bu ñu nee art martial. mooy militaire. martial mooy mili mooy guerre. art de guerre loon mais bi guerre bi jeexee. Euh, dañu yaakaaroon ne man ko maître fi nekkoon mhm. war nañ mën a utiliser art bi pour discipliner en tout cas xale yi parce que dañu gis ne de plus en ay xale ñoo ko woon pratiquer donc xale doo ko jox paaka da ciy gaañ boppam wala mu gaañ keneen mhm. moo tax sax technique yi changé mhm. au début technique de main ouverte yi moo gënoon bari parce que technique de main ouverte yi mooy les techniques les plus dangereuses moo tax ñu changé yu bari tëj loxo yi daf ma ni euh, épée boo ko tri ni lay mel boo ibbee dañ ciy moucheté mooy dañ ko fermé mooy coup point bi mooy épée bu ñu fermé mais ma dóor la ak nii moo gën a dangereux ma dóor la nii moo gën a dangereux ma dóor waaw fii mën na viser la gorge bu fekkee nag da ko da nga conditionné sa yaram mën nga étan étendre possibilité viser sa plexus plexus adversaire bi wala les côtes donc point du doigt mooy faar yi mooy faar yi bu nekkee benn baaram ne ko utiliser ñaari baaram ne utiliser da ngay mën a ŋàdd ak tranchant bi. waaw mooy mm-hmm. technique yoo xam ne boo ko travaillé tuuti. Mm-hmm. pour mën a faagaagal RBC dafa nekk lu yomb. Mm-hmm. donc arts martiaux yooyu guerre moo ko taxoon jóg. bi ñu weesoo guerre bi nag ñu changé sax technique yi. dugal ci benn philosophie morale booy seet ki créé karaté jàngalekat loon instituteur loon maître Funakoshi. Funakoshi moom dafa daan yar. karaté Shotokan karaté Shotokan parce que karaté dafa bëri style. te comme jàngalekat la woon du woon insister un peu sur les valeurs morales. Mm-hmm. moo tax boo duggee ci saal li ñu njëkk jàngal mooy respect. respect ngay saluer drapeau bu fekkee drapeau Sénégal la wala drapeau sa dëkk. da ngay saluer respect humilité honnêteté xam nga qualité yi mais première chose mooy respect dañu ko teg en tête. respecter sa dëkk bëgg sa mm-hmm. dëkk. respecter sa maitre mm-hmm. respecter yeneen maîtres yi. respecter anciens yi. respecté ñi ngi tool sax grade mhm. respecté salle bi moo tax boo duggee nga nettoyé salle bi ba mu set comme ça par respect par soi même d' abord mhm. respect pour ñi la fi fekk si aussi mhm. ak respect pour say camarades parce que boo tilimee mu nga xeeñal ñi nga àndal wala nga tilima leen donc loolu dafa am solo humilité bi dafa am solo parce que boo amul humilité mënoo jàng parce que di nga ñëw fii ku am 10 di la jàngal ay tuuti à 40 boo ñëwee da nga ko wax defal de suite. maanaam 15 ans. waaw yow nga am 40 ans bu la sutee grade mooy mais day mel ni armée yow ma nga nekk adjudant sa doom dugg armée ñëw nekk officier. am 25 ans boo ñëwee da nga def garde parce que c' est la même chose. La donc boo amul humilité doo mën a jàng. donc koo gis koo gis mu dem ba nekk ceinture noire mën nga gëm ne kii au moins lépp lu mu ñàkk ñàkk am na humilité. parce que boo amul humilité moom doo mën a passé grade yi euh, doo mën a évoluer ci benn salle. ak maîtrise de soi beeg ainsi de suite les bons comportement euh, honnêteté bi c'est la même chose honnêteté bi du sax rek euh, dingati nit ak nit même par rapport ak sa pratique xam nga yaa ngi entraîné di tricher <laughs> yaa ngi nax sa bopp là c'est malhonnête da gis par exemple kii dey côté bi la gën a mën dóore gauche bu ñëw droite di tricher yaakaar ni maître bi gisu ko kooku c'est malhonnête parce que man sànq bi ñu entraîné mhm. euh, da nga may da mel ku ma woon ginnaaw mhm. man maa ngi lay gis mais yow damay mel da ngay mel ku ma gisul mais ndekete yow yaa ngi may gis c'est-à-dire man su ma juumee da xam man dama dama dama dama juum. waaw mais par expérience da ngay jàngal nit ñi da nga leen di bàyyi xel. Hmm. di bàyyi xel. Hmm. donc loolu aussi dafa bokk ci qualité. réflexe lan la lan réflexe lan la lan lay apporter ci ci ci ci ci pratique am réflexe. waaw mais réflexe yi c'est fondamental. Hmm. d'abord lan moo tax nga am de bon réflexes. travail par deux bi c'est irremplaçable. travail par, par deux avec, avec, un partenaire mhm. ngay travailler self défense ay techniques yoo xam ne euh, da ngay toog di ko imaginer mhm. yemul ak boo jàkkaarloog nit nit yor paaka mais bu nekkee en bois di la attaqué mhm. à la longue da ngay am réflexe par rapport ak koo xam ne rek danaan bon maa ngi ñëw ak sa loxo jàppal ne paaka la bés boo gisee paaka réflexe du fa nekk <laughs> moo tax fi ñu day arme yëpp xam ne bu ñuy travailler dañuy travailler loo xam ne en tout cas dafay proche de la réalité réflexe yi da lay permettre nga gaaw a réagir mm-hmm. waaw souplesse waaw souplesse bi c'est pas si waaw dañ koy travailler mais xam nga souplesse dafa am benn inégalité entre les gens mm-hmm. par rapport ak souplesse bi dafa am ñoo xam naturellement dañu souple yow mën nga ñëw di travailler fi pendant deux ans écartement lu ne nga def ko mm-hmm. am ko xam ne buy ñëw di inscrire ñaari fan lay def mën a def grand écart am na ko xam ne sax entre les gens par rapport ak souplesse bi. Mhm. souplesse bi dina la aider. Mhm. notamment pour coup de pied yi faciliter exécution coup de pied mhm. mais c' est pas la chose la plus importante. c' est la chose la plus importante mën nga mën nga bañ a am aucune souplesse. ba pare am vraiment une efficacité totale. Euh, par rapport ak sa vitesse. par rapport ak sa précision. par rapport ak sa puissance de frappe. ñu gis ni nag dafa am ñoo xam ne dañuy dem ba euh, nekk ceinture noire waaye du maîtriser trop technique yi loolu la moo ko indi. waa mais loolu dafa nekk laxisme d' abord par rapport ak ñi nga xam ne ñu def passage de grade yi. Mm-hmm. mais avant ça sax euh, par rapport ak seen maître yi. Mm-hmm. ak seen yi parce que passage de grade dañ lay présenté. mais yow su fekkee tu es honnête tu sais que élève bi parewul bu ko passage de grade bu ko ne demal nga essayer mm-hmm. da nga xam ne wóor na ne il a le niveau. bu demee di passer régulièrement grade à chaque fois bu amee niveau. kooku bés bu nekkee Saint-Tinois euh, mënoo nekk euh, en tout cas sans faute mm-hmm. mais di nga am un niveau appréciable mm-hmm. donc su fekkee ne ñu am na indi nit xam ne mm-hmm. dañ def ba noir munuñu seen programme wala technique de base yi munuñu ko parce que noir mooy rek maîtrise des bases loolu rek la mooy ki nga xam ne jàng na base yi su fekkee base yi mënuñu ko c'est parce que dañ ko escamoté wala entraîné wu sérieusement ensuite ñu koy présenté passage yoo xam ne amul rigueur par rapport ak ñi di surveiller waaw mais force bi d' abord non en fait dafa am force ak force bu nekkee force de frappe mhm. ça n'a rien à ak force corporelle bi mhm. du benn mhm. c'est-à-dire que yow mu nga def cent kilos am ko am cinquante kilos di génne loo xam ne mënoo ko génne loolu sax mooy avantage u budoka bi par rapport ki nga xam ne pratiqueul arts martiaux parce que man j'ai cinquante kilos mais sama cinquante kilos yëpp mën naa ko def ci benn coup parce que dama am une bonne position de stabilité. Mhm. parce que damay impliqué sama hanche. Mhm. damay door ak sama épaule bu fekkee coup de la. Mhm. coup bi dafa gaaw du téléphoner ainsi de suite. alors que ki jàngul xamul loolu. donc sa 50 kilos mën na ëpp valeur ki xam ne il pèse 100 kilos mais xamul nu ñuy dooree. courage fit ñeme. waaw ñeme ñu bari dañu wax que ne quand euh, dafa nekk loo xam ne. Ah. Euh, nit ñi dañ koy dañ koy judduwaale. mais expérience bi ñun en tant que enseignant di enseigner depuis presque on a vu des gens yoo xam ne bi ñuy commencé dañuy ragal mais mm-hmm. confiance en soi bi ñu am mm-hmm. mooy dem ba ñu nekk yeneen nit mm-hmm. euh, da ngay gis xam ne fu ñu xàccee mu daw mais dina dem ba xam ne nekk un champion boo xam ne kenn mësul xaar ne kii mës nekk un champion ndekete waaw donc euh, voilà léegi nous avons Balla en ligne waa Balla euh, voilà donc Balla yow yaa ngi en direct ñu ngi ci émi ah <laughs> voilà donc def nañu benn séance d'entraînement bu bu bu bu saf sax bu metti waay Balla affaire yi saf na de. bu safoon doo wax de. <laughs> non pare léegi je suis avec maître ah. ah waaw léegi ah, euh, Balla je rappelle que Balla Dieye laa la doon wax mooy président fédération sénégalaise de taekwondo euh, présentement yow yaa ngi Paris looloo tax mënoo woon assister sax euh, suñu émission bi. mais yaa ngi en direct donc ñu bàyyi la rek nga def un petit témoignage ci maître Dame Seck. ah d'accord ah déjà di nuyu xanaa sama maître sama papa maître Dame Seck. Mhm. man moom moo formé depuis nekkee xale et euh, titre yi moom yu ma am yëpp tamit c'est grâce à maître Dame. Mhm. parce que euh, mun naa ne ñun on était on était dans une très très très école. Mhm. parce que tey jii euh, man je peux dire que comme ni ñuy wax rek c'est une école de la vie. donc gendarmerie frontière. foofu ñun tàggat nañu si plan yëpp. Mm. yàlla def nañu mën a def ay résultats sur le plan africain. Mm. n'empêche que benn philosophie rek la amoon mooy moom il visait il visait haut. te mm. loolu dafa ko inculqué aussi te c'est des valeurs yoo xamante ni chaque fois je me rappelle moom mu xasee ba en tête benn objectif. muy des championnats d'Afrique. ils visent o Ça veut dire hmm. qu'ils vont aller chercher les championnats du monde et après les championnats du monde, c'est une médaille olympique et tout ça. Donc, ci culture boobu la ñu semé. Hmm. chaque fois ci tànk yooyu la ñuy topp. Hmm. donc euh, aujourd'hui euh, pour ñun référence la modèle sur tous les plans. c'est pas seulement le volet cadre sport quoi. mun naa ne des fois sax daf ñuy parce que euh, je pense qu'il est vraiment en avance de loolu c'est quelqu'un boo Mhm. man moom mun naa ci def témoignage yu dul jeex. et puis mhm. d' très difficile pour man di wax moom bu fa bu nekkee très difficile pour man may wax. franchement loolu xam naa xam naa nekk fa di wax waaw. xam naa mhm. et en terme de qualité d' entraînement reconnu dans le monde entier. parce que tey jii bi muy dem Corée koy jox ay prix. c' est pas aujourd'hui ça date très longtemps. Euh, loolu moom mun naa ne ça veut dire que sur le plan mondial reconnaître nañ moom. son professionnalisme. ay Canada c' la même chose boo ko joxee. il est capable de le développer produire si loo xamante ni dina yéem sax koo jox na ko. je ah me rappelle avec l'Apkido. Mm-hmm. bi ko koy bi ñu indi Apkido pour ko ak aujourd'hui tey jii fi donc mm-hmm. je pense que euh, voilà euh, euh, c'est c'est c'est plus qu'un expert quoi et puis pour ñun moom c'est c'est un père c'est un conseil c'est un modèle. aujourd'hui je suis à Paris mais mun naa ne aujourd'hui su ma woon tey tey directement sans poser de question ou quoi ce soit loolu euh, moom dugal na ko ci élève am yëpp yëpp yëpp mhm, mhm, ba tey ci Dieu a fait que euh, a pas mal de euh, élève yi mu yoroon ñun ñun ñëpp mhm. ñu nekk nañ ci ay instances yoo xamante ni aujourd'hui ñu dirige des postes c'est pour montrer que rek moom laa doon wax au am na ay valeurs yoo xamante ni inculqué nañu ko quoi et en termes a il a il a am na lépp loo ni champion di wut rek am na ko ci en tout cas di ko remercier di jërëjëf jërëjëf maître jërëjëf waaw kay voilà donc bal voilà Balla Dieye euh, mu nekk koo xam ni moom itam wax dëgg yàlla sa élève la bu yàgg ñu gis ni que maître Fagna Dieye moom itam mi ngi nii di yëngu moom mi Italie moom tamit sa élève la man man mii mooy sama maître man <laughs> moom mooy sama maître man yow yaay sama maître euh, dañu ñëwoon say tey seet si eh maître Dame Seck ah une légende quoi vraiment man loolu c'est un plaisir pour man ma def ko yéen ñi nga xam nag yéen a nekk ay anciens élèves am euh, ma ne woon rek vraiment naa leen impliqué ngeen def témoignage ci moom. waaw. Mhm. ah vas met. <laughs> waaw. xam naa c'est difficile quoi mais góorgóorlu rek waaw. mais kontaan si invitation bi parce que. Mhm. soo ñu wooyee aussi pour ñu wax si Maître Dame vraiment. Mhm. dina nekk un plaisir si ñoom. parce que. Euh, lu ci munti wax mooy ak luñ ci munti du du du maître papa la si ñun. Hmm. donc euh, jaar nañ ci ay loxoom. Hmm. mu tette ñu. ndaw hmm. ba ñu mu sëy ñun ñëpp. wax neex yàlla rafet rek lañ mën a seede si moom. nekk nit ku simple. nit ku armation. nit ku honnête mu nekk moo euh, xam ne euh, ku bëgg lu may def la vraiment. Mm-hmm. man euh, damay wax loo xam ne du ma ko fàtte. Mm-hmm. barki démb rek maa ngi ciy waxtaan ak ñaar. Mm-hmm. fekk ma doon lekk benn ma doon lekk benn bonbon. bon donc moom bi muy biscrème. biscrème boobu si am Sénégal. waaw loolu yàgg na biscrème yàgg na waaw. crème bi mm. mu fàttali mën ñaar mm. ma ko fàttali ko rek mën daam la may mu ne ma ah lu ma ne ko parce que saa yu ma demee raxma raxma mm, école waaw ah, enchaîné añ donc bis bi moo nekkoon sama añ ndeysaan ma ne ko saa yu ma ñëw ci ci buntu saal yi mën daam <laughs> mu nekk loolu daal bi quoi <laughs> quand waaw mooy sama anecdote ci <laughs> moom macha mais vraiment mm. man euh, yàlla daal lañ ko mën a bàyyal mu fayal ñu ko parce que mënuñu ko fay ñun mm-hmm, ñëpp mënuñu ko fay mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, lépp li nga xam ne éduqué nañu ko muy euh, discipline muy respect muy muy respect loo xam ne moom la àdduna bi instant bi loolu moo fiy dox ah. mhm, mhm. loolu moo fi doxa mhm. nit su amul discipline amul respect. donc euh, mën nañ wax ne du avancé si dara. mais Dame nekk koo xam ne dafa uuf uuf dafa njaboote ñëpp. mënuñu la wax kii ak ak kii ak kii. yem ñëpp bokk yem si moom. <laughs> mu nekk koo xam ne dafa bëgg lu parfait. lépp muy. Euh, lu mm. muy jàngal élève am rek bëgg na si jël pay bëgg na si jël pay si feeñ na ci yéen feeñ na ci yéen ñëpp macha allah waaw feeñ na si ñun nag si lépp nag si lépp du si euh, euh, du si aar la feeñ mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. donc man mii jigéen man euh, damay dynamisme boo xam ne day dem ba danay toog ba sa biir kër aussi. parce que compé mais inculqué nañu loo xam ne. Mhm. suñu biir kër yi. sax dañuy dañuy noonu. léppay jaar yoon. muy dynamisme. waaw muy respect. Mhm. muy discipline. Mhm, yooyu yëpp day dox ba ci biir kër yi. waaw mooy li ah, de de façon waaw mooy yar ak teggin rek ak lépp rek quoi. waaw pas-pas. fonk sa sa kilifa yooyu yëpp dafa am solo. jërëjëf maître jërëjëf. waaw kay kontaan naa <laughs> kontaan naa. jërëjëf merci merci ñaaw. si bos mi <laughs> eh, eh, jaajëf. jaajëf jaajëf <laughs> merci voilà donc maître mi ngi noonu un mot. bi muy wax bis crème sax damay yaakaar ne en 94 ma yóbbu leen démonstration RTS. ñoom Balla boobu ay 12 13 ans la ñu ñëw fi mën ne leen dañ defal fête jëndal leen ay biscuit je pense que loolu lay wax sax bon je suis content ci ci ci témoignage yi mm-hmm. ak euh, si ñoom ah d'ailleurs mm-hmm. euh, Balla moom c'est peut-être le model de courage modèle de courage bu mm-hmm. fekkoon da ngay résumé loolu nga wax je me rappelle dañuy am euh, émission bu ñuy def à la RTS mu ne bon léegi seen se yat malo su leen laajee lu tax ngeen di def tey kon la ngeen koy wax bon am kenn jóg ne pour self défense ki ne pour xeex moo jug taxaw ne je veux devenir un champion. macha allah ah moo tax moo ci ëpp ñoom ñëpp. champion du Sénégal champion d'Afrique de l'Ouest champion d'Afrique. vainqueur coupe du monde francophone dem Jeux olympiques ainsi de suite. Mhm. donc c'est un modèle de courage. Mhm. donc euh, ak euh, Fagna ji aussi. Mhm. ak euh, ñeneen ñi intervenir wul sax. ñoom ñëpp ku ma rek c'est la famille quoi. c'est la famille ñaa aussi c'est un gars exemplaire. donc euh, très fier aussi que ñoom ñëpp waaw tout le monde tout le monde y a mm-hmm. plein mm-hmm. Euh, ñoom ñëpp macha allah dama ne peut-être la chance aussi d'avoir des gens yoo xam ne c'est ah. ah, moo ko bëggoon noonu dara. Ah, léegi nag dama lay bàyyi nga euh, lancer dernier message bi. Mm-hmm. xam nañ ni que jamono nag soppeeku na. jeunes yi ban message nga leen di lancer. waaw mais message bi surtout pour ñi nga xam ne ñu jàngale la. surtout ñi nga xam ne ay leader lañ. Mm-hmm. surtout ñi nga xam ne nit ñi dañuy roy si ñoom. Mm-hmm. mu nekk ay valeurs essentielles fondamentales yoo xam ne moom la war a inculquer ñi les gens. Mm-hmm. Euh, bu fekkee ne euh, dañu limité woon rek. Euh, bañ fen. bañ a tooñ. bañ pare bañ a tayal. bañ a mooy suñu devise. bañ a fen bañ a tooñ bañ a waaw. dëgg naa kenn sax naan bañ a sàcc mais bañ a sàcc ba ci tooñ la rek. bañ a tooñ la mhm. boo gisee guerre mondiale sax la moo ko indi woon au début tooñ. suñu grand mari bi ñu fi déporté tout ça lu tax dañ leen. dañ leen dañ leen fenal. Mhm. dañ leen fesal mais bu mhm. fekkee ne yow doo tooñ. yow doo fen. ba pare nangu góor mooy nangu liggéey. booy jàng nga jàng pour réussir. boo war a liggéey aussi nga liggéey pour am li nga am. je pense que loolu la nekk ay qualité yoo xam ne moom la ñu war a en tout cas inculquer les jeunes. donc euh, te ku nekk aussi peut-être que doo mën a yar ñëpp mais ñi nga xam ne ñoo nekk sa responsabilité mën nga leen influencer man dama yor salle vingt personnes laa yor vingt xale ma jéem a influencer vingt xale yooyu def si ñoom esprit esprit bu baax euh, jàngal leen ay valeur morale mais ki nga xam ne yow par exemple da am sa ay jeunes yooyu liggéeyal mais aussi nga jëm leen yar yar leen ci ponctualité ci nangoo liggéey ci bañ a tardé ak ainsi de suite ainsi de ki nga xam ne dafa yor ay apprenti mécanicien wala tey wala yooyu aussi ñu mu yor noonu la ñuy dem ba changer situation mais du rek ay wax il faut que vraiment nekk ay jëf sinon lu bari dul changer Sénégal parce que six ak neuf la nekk rek il faut que à la base ñu éduquer les gens ñëpp jàpp ci peut-être que génération yi ñëw mu tane koo xas aussi boo seet yenn yam rek parce que <laughs> parce que loolu daal waaw ñun ñëpp ay Sénégal lañ daal te daanaka ñoo bokk jikko mhm. bu ñu bëggee nag de meilleur Sénégal nouveau type Sénégal bi ñu wax mhm. du ay wax nii rek de mhm. il faut que à la dix ans vingt ans ñoom bu nekk ay dirigeants nekk des gens mais sinon nous on est tous pareils jërëjëf euh, Ndindy TV ak beneen bi l'oiseau du net jërëjëf shukran Malick Fall suñu rak moom nag bëgg naa ko indi moom tam mu ñëw ah, macha allah macha allah moom moom ko sawar la ku bëgg ay ay ay yëngu la ba pare am na fit moom ñeme na xam naa <laughs> c'est naturel chez lui oh, euh, bon maître nag ba tey ñu am fi benn ancien wax dëgg yàlla mu di oustaz euh, Ousmane Ndiaye alors oustaz yow ancien nga wax dëgg yàlla bokk ci élèves yu njëkk ya bi ma ñëwee sax fekk la fi vraiment dama kontaan parce que ma gis la ni que vraiment yaa ngi am forme ba léegi loolu alhamdulilah maa ngi lay nuyu bu baax bàyyi la nga sànni kàddu ci waxtaan bi. Ah, maa ngi nuyu télévision bi di rafetlu nag eh, ñëw bi ngeen ñëw fii li tax mooy dafa am ñoo xam ni eh, da ngay am plaisir pour toog ak ñoom un grand maître comme maître Dame Seck eh, am na yoo xam ne ñun mënuñu ko wax sax ci ci ay ay ay waxtu ndax ñun ñi nga xam ne ñooy ancien élève am depuis 94. waaye ñun ñi nga xam ne ñoom la formé euh, particulièrement man dama wax ne benn maître du ma jàngal man benn maître dootuma jàngal moo tax dira bi mu demee voyage laa toog defatuma benn aar di mu nekk bitim réew yëpp maa ngi toog di ko xaar bi mu ñëwaatee tamit ma commencé waat entraîné nag moom ak samado bi kon moom mën naa wax ne yàlla moo ko mooñee loolu c'est-à-dire nit ki da nga bëgg dara mais dafa am yoo xam ne don la ci moom mais dafa boole ci doom boobu nag am ci yitte ak la ndax am na yoo xam ni eh, yitte moo lay koo jox ak ak patience muñ ndax mën naa joxe ay exemple lan bu fekkuloon mu am patience tey lii mu def nii euh, réaliser ko du ko réaliser ndax dafa am ay parcours yu métti yooyu pour mu franchir ko il fale mu am patience obstacle yooyu kon moo tax mu nekk koo xam ni ñun fierté la ci ñu ñu ñu ne ay élève maître Dame Seck lañ fu ñu dem dañ koy tiitaroo mën naa ci joxe benn anecdote euh, président Macky Sall dafa ñëw Medi euh, Kaolack bi mu ñëwee garde coram bi am na ci ñoo xam ne bi ñu toogee di waxtaan noonu mu am ci ku ñu tudd rek muy Babacar fay ma ne ko kooku maak moom ñoo nekk ndoroon ci benn salle bi mais kooku dafa ni maître Dame Seck a fa jaar ñëpp ay expert lañ xam nga yooyu dafay nekk loo xam ni vraiment ñun dañ ko ci sant yàlla bu baax a baax a baax euh, ndax boo jaaree ci loxoom rek set dina la jàngal humilité dina la jàngal patience mais dina la jàngali fulla te ñett yi nag mooy nit boo jaaree ci moom doo tricher xamuñu ko du entraînement du liggéey fa ngay liggéeyee boo jaaree ci loxoom doo wax lu dul dëgg boo jaaree ci moom da ngay nekk ku sincère ndax rigueur bi kon yii daal mën naa ko wax ci moom vraiment euh, ñun fierté la ñu euh, am ci moom euh, nekk ay élève te nag moom mën naa wax ne kuy dajale njabootam lañ ndax ay année ñi nga xam ne commencé nañ 94 moo leen di woo téléphone ne kaay leen boo fexe mu créé leen ay groupe mm-hmm. bi may tëjee nag nga baal ma mooy li gën a am solo mm-hmm. mooy côté social mm-hmm. parce que dem na ba créer SOS Budo lu tax mu créé ko mooy jéem a jàppale budokaay yi tey bu ma loon naw euh, doguma la am na ku feebaroon def naa mujj na sax làqu moom dafa jël bene initiative comme quoi gars yëpp jàppale ko vraiment pour paj mi moo tax ma ne social boobu da ci liggéey lu bari ndax am na ci mettre scène am na fi jafe-jafe mais moom moo ci taxaw bu nit ñi dajalee ci biir SOS budo boobu am luñ ko yóbbul am na ci koo xam ne artiste la woon comédien mais moom it bu mu amee problème maître doom da ci taxaw ci budo SOS budo bi ñëpp jàpp ci. kon dama ne moom socialement da ciy liggéey bokkul ak ci li muy def ci suuf loo xam ne kenn du ko yëg. kon li nga wax naan euh, état bi war nañu ko gestu état bi war nañu ko jàppale ndax moom ku ko jàppale day jàppale ñi ci suuf. kon yooyu daal laa mënoon a wax ci témoignage yu ñu mënoo def ci moom jërëjëf. alors merci beaucoup euh, maître Dame Seck lañ doon euh, vraiment dalal mu nekk nag loo xam ne man lu ma yàggoon a bëgg la ñëw toog li muy def euh, ñu fësal ko wane ko ndax itam euh, ñëpp ko war a delloo njukkal état bi war na la delloo njukkal wax dëgg président Macky Sall war nga delloo njukkal ki nga xam moo di maître Dame Seck gis naa nag euh, ay ñoom Abdou Diouf mosoon nañ la recevoir ah ak Ablaye Wade Ablaye Wade waaw Ablaye Wade waaw recevoir oon na la joxoon na la benn prix et mais Macky Sall na ko na ko tollanti lu euh, dina am solo kon nag ma àndoon ak Malick Fadal Fall euh, ñëwoon fii ci sama Samado International jërë ngeen jëf sama gars yi kontaan nañ bu baax am nañ koo xam sanal na woon nag mi ngi ne merci beaucoup allez ciao